El Hadj Ahmed Aidara bismillah la xew ca daaray kokki day ah, doy na waar day terminé yéene kaay dama ne ay xale yoo xam ne day diggante juróomi at jàpp kon juróom-ñetti at waaw dañ leen di takk ak ay seen laa la wax maar day taal dama ne la benn sëriñu daara day ca kokki googee nekk ca département bu Louga waaw moom mooy def nag lu ni mel laa la wax waaye nag gis nga waajoo ja xaadim ngay lay mel ni kon ku daan jaay ay jaam jamono njaayu njaam nga waaw dama ne ay seen feer lay takk kon ca xale ya yàlla ah sëriñ ba xaadim gay ah bañ ko jàppee laaj ko day dana dama cee déggoo ak waajuru xale yi eh way samba dama ne leen nekkul kooki dee l'observateur nee na ca njaañ dëkk bañ naan njaañ waaw li xew ci réew mi doona waar ubil vox populi journal bi ne du day ah final gi nga xam ni kon ñu ngi koy final nag jigéen ñi day ak gone doy na waar lu tolloo junni ak ñetti téeméer ak ak ñeent laa lay wax ak ay xale waaw dañoo yegg seen kaw maar di taali ak ay de ñaari ay soxna yoo xam ne maanaam kon danoo war na lor bokk na ca ñetti ñoo xam ne tamit maanaam kon ay mineur la dañ leen rey inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax wàllu jigéen gée ngi mel ni tulleeg ma lay tribune yéene kaay ne wàllum récépissé di autorisation bi nga xam ne nag maanaam ñu koy jox góor jigéen yi day ak jigéen ñi nga xam ne nañu sëy seen biir di lesbiennes yi waaw waaw ONG Jamra day génnee nañ ay preuve yu leer parce ko waaw loolee mën naa ne même bu dee Aly Ngouille Ndiaye sax kon récépissé ah nguuru Macky Sall gi lée lu tolloog juróom ñaar ci ay récépissé kon joxe ko laa ilaaha illallaah ah ko wax Abdoulaye Wade nguuram joxe nañu lu tolloog juróom-ñeent laa la wax boo ko boolee fukk ak juróom benn ci ay autorisation de ay récépissé yoo xam jaarul yoon mbirum góor jigéen gi ak lesbienne jigéen yi nga xam kon nañuy sëy seen biir ah waaw parce que bu code pénal bi day tere ñaar ñoo xam kon maanaam ñoo bokk awra di sëy taal yaa jum wala maa jum looloo parce que maître ma soxna kan waaw nee gis nga yokkute courant gi lée très mauvaise nouvelle lii dañu ko préparé ñoo ko te lii mandargaal na ñoo ko tey mooy gis nga Sénélec daa bind commission de régulation du secteur de l'électricité le 19 novembre la ko bind le 19 joojee te la commission ba réunion te la ñu jël dogal boo xam ne ci juróomi bâche lañu ko def laala lii mooy mandargaal ne na kon ñii ñoo yokk waaw yéen kaay gi nee na waa aar li ñu bokk day amal nañ seen assemblée générale balaa la na wàllum yorinu pétrole bi gaz bi le leer critique yéen kaay ne te waa aar ñu bokk day waaw nee nañu ne gis nga wàllum gaz bi ah bëgguñ kumba am day ak kumba amul nday wàllum justice na leer ci Aliou gaz astafurlah Aliou Sall day tribune yéen kaay nee na day wuyu ji dee doyen des juges dëgg la suñ côté de moom kay mooy tëj baal bi ji te waaw coow la nag nekk ay téeméeri téeméeri milliards allahu akbar ñu déglu te nekk ay kilifa yu bare bare la wax bokk na ca Clédor door Sène déglu nañ ko Abdoulaye Timbo déglu nañ ko Thierno Alassane Sall déglu nañ ko Mamadou Lamine Diallo déglu nañ ko Abdoul Mbaye déglu nañ ko ak ñeneen ak ñeneen a sur quotidien Aliou Sall rako Macky atakat ba tey exclusif yéene kaay ne waaye Abdoulaye Timbo daa juum am daa dëggu looloo jar laaj en tout dugal na jar baa ni rubba de moom Aliou Sall waaw mbirum escroquerie wàllum suuf waaw Omer Seck day gorow Macky Sall ba dugg na ci scandale musiba boo xam ne benn milliard la allahu akbar moo ne président Macky Sall day waxoon na gorom bi ne ko moytul ma suuf da nga yem si sa PCA bi ca pétrole seen laa la wax ca jamono jooje tribune yéene kaay nee na en tout cas bu allahu akbar ma ca kaso chambre 42 exclusive yéene kaay ne waa APR day ñi ngi préparé benn plan bu bon ngir génnee bu ga ci kaso aha waaw waaw plan bu njëkk mooy ab docteur médecin la ñuy dem jëli ngir génnee ko ca kaso be yóbbu ca hôpital ba ñaareel bi ñuy waaj ñoom waa APR mooy bu ga seli giraawaali gi mu def rëy na genn xeetu rëy goo xam ne ñoom jaaykatu tikke nga woon Bougazelli jaaykatu tikke la woon xëy di may jabaram fukki million ak juróom allahu akbar jaaji waaw nee na c'est du banditisme financier looloy dëgg xam nga Bougazelli nag maanaam ba ko yóbbu kon kaso ba daa meloon ni ko naan ba ne tas mel ni kuy laa la wax di wax tararari ma nga naan Macky Sall waaw daf maa mere Macky Sall daf maa mere man nag préparé naa samay jabar Ahmed Aïdara moo yàq moo yàq métier mi waaye ñi xam ne ñoo ma war di samay traître xam naa ah ña ah ña ña ña ah ah Bougazelli daal nekk mar d' itali libération yéene ne Seydina Fall bu Kaseli moomee waaw section de recherche day ay audio yoo xam ne day tàkk du fay la yor ay audio explosif waaw waaw parce xam nga bu Kaseli ngir mu yay ay clientam ñu dikk waaye itam ñi muy liggéeyal da ay complice am bu njiit waaw xam nga lan la leen doon gëmloo yoonoo leen ay audio de audio bu njëkk bi bu Kaseli dane cax bu leen tiit bu leen raf-rafi man bugaa damay liggéey ak ay commandant ci wàllum foo biyey bokk na ca commandant la ilaha illallah ah bokk na ca commandant recherche yow Abdou Mbeng nekkul sax brigade de recherche kooku section de recherche la jiite ci audio bi ba léegi ni la day moom bugg a seli waaw nee na mi ngi liggéey tamit ak benn procureur boo xam ni moo ko jàppale woon moom bugg ah ba mu ci jafe-jafe bi mu nekkoon eh way samba ñaareelu audio day bugg a waaw ay paquet dollar ak euro la ca wax ñetteelu audio day bugg a waaw dane woon ay coupure cent dollars ci xaalis bu ñuul bi yor waaye ba mu billaahi wallaahi dama doon kaf rek weddi audio yi tamit ca ne du baatam du moom enquête yéene kaay ne ma defal leen dossier ci faux waaw trafic drogue bi wàllum arrangement ak yeneen ak yeneen sax mbir mi daa yomb de sàcc gu mag gi ci kaw daa yomb laa la wax docteur Ismaïla Sène a gis nga giraawaal yu bari yi nga xam ne maanaam moom la ñu gis day dem daal ba wàllu confiance wóoluwante a wii dox ci diggante askan wi lée ak suñu bànqaasu réew dootul amati maa la ko wax confiance justice ku ma am ndey ku ma amul ndey amu fii Ousmane Ndiaye psychosociologue gis nga yii xaw yëpp mooy tax nag ba sénégalais yi di sambal ndënd kilifay politique yi lée ak administration bi duñu leen faale jàkkaarloog ñoom Seydi Gassama ci 24 heures waaw nee na giraawaal yi scandale xam ne kon suñu kilifay dañ ciy takk day war dakk de réew mi war naa de réew mi war de source aane gis nga wàllum ndox mi yorin ngi jox Suez waaw waa SDE ñàkk nañu ñu jëm laa la wax ndax seen kër gii nga xam ne kon jébbal nañ ko nasaraan yële ca jamono jooje PDS dee ngi jax-jaxi ba léegi ni le ubil leese ko yéene kaay Omar Sarr ak suxali soppi waaw nee nañu communiqué bi nga xam ne dañ ne Abdoulaye Wade kon moo ko bind c'est pas vrai Abdoulaye Wade bind ko ay xuusmaa ñàpp ñoo làqatu ca ginnaaw lëf la waaye ñoom fa de déedéet vox sobi li ne maître Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang ak kenn kilifa gi laay waxal kilifa ga kay xalif général maître Madické Niang jubóog Abdoulaye Wade waaw dikk na nag ci jamono joo xam ni kon maître Madické Niang ma nga ca ab alliance politique ak Papa Diop Alaaji Malick Gakou Idrissa Seck ak Ibou Soumaré ak professeur ya ko yéene kay nañu meeru Louga Moustapha Diop day waaw wàccee na Louga tàngal ko ba mu laa la wax Moustapha Diop inauguré na laa ya day ca diwaanu Louga Moustapha Diop inauguré na poste de na ba inauguré